Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. tay nak ma ñew ci eh, li nga xamni moy garab gii di garab kom garab yëpp mel ni daal ataaya wala café eh, ñukoy wax ci nasaran bi marijuana wala ganja ñaari tur yoyum dess des na ko bu Sénégal ñukoy wax yamba yaakaar naa noonu la te rek damaa ñëw di laaj ñi nga xamni ñoy dundu alquran islam kon Cheikh Mbacké ñu ngi koy jox laaj bi nga xam ne garab gi daal ah, ñi koy tox dëgg-dëgg jàpp na ne lu dagan la comme ñax la comme ñax yi yëpp yenn réew yi nga xam ne ñu ngi koy def ñoom dañoo jàpp ne dara raamu ci jullit ba ku ñëpp a ci am eh, dañ koy jàppee comme café jàppee ko comme ataaya wala leen loo xam ne daal toxine lay def sa yaram rek mooy dana def manifester sa yaram moo yooyu moom lañ ko jàppe Ah, léegi nag may laaj bu dee ñun waa ahlul al nun koy waxee ti ahlu sunna wal jamaa ñun dañoo araamal lii aramal nañ tux yamba waaw ah, ñu bëree bëri dañ koy araamal may laaj nag yéen Seex Mbaxe comme yéen alxuraan kese ci ngeen di dellu mooy seen delluwaay ndax lii dangeen koy daganal wala dangeen koy aaye ak bu ngeen ko de aaye ci ban aaye nan ko war a mën a fekk muy lu leer comme ni ngeen di waxee ni lépp rek ci arxaan lay war a delluwaat ndax dafay mel ni lii moom borom xam-xam yi rek ñooy kalkin moo xam ci diine la moo xam docteur la ñi nga xam ne ñooy ci santé wala xel leneen it bu dee ci diine ñu xam ni mën naa boo ko dee def mën na lay tàggal ak sa sago ñu xaraamal ko léegi nag may laaj ba xam euh, ci alxuraan yéen ñi nga xam ne ay xuraan kese ndax kii ku bokk ci yéen mën na koy tux daal te du ko yàqal dara ci diineem abu ah, bu ko dee laaj bi dal moy lo rek ndax gis nan ni ay jamono tuwa bi don nañ ko jema ay ah, bu de rew mi nek nañ ci tegan ay loi mu jinen ko dindi nga xane fu lo neex man nga ko fa toxe legi amerik nonu yakana Canada ak rew yu bare bare bare bare bare daal wat nañ ci bàyyi nit ñi ñukoy tox ba ñenn ñi sax amna lu muy faj ah, bu njëkk ne dañoo jàppoon ne ñi koy tox mom ay dof rek koy tox wala rastay mu mel léegi tubaab yi ñoo ko gën a bëgg sax rasta yi euh, loolu daal mooy laaj bi nga xam ne bëgg naa ci leerlu ndax bu dee garab la goo xam ni day faj garab la goo xam ni boo ci jëlee lu yem du la yàqal dara moog ni ngay def café mu jox la sewarte ñoo ni ngay def ataaya mu jox la cawarte nee na ñoo yem bu ëppee nag man naa yàq sax li nga xam ne mooy sam xel xanaa lu ëpp daal tuuru euh, léegi nag diine moom yaakaar ñi yor xam-xam ñëpp dàq nañ ko may laaj nag ba tey rek laaj mooy al islam ndax lii dagan na ci yéen wala da koy dàq ah mi ngi garab gaa ngoog yàmbaa waaw kay asalaamaaleykum euh, maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di baalu ñëpp aax te di leen baal aax ñaan yàlla mu boole ñu jéggal euh, macha allah euh, kii ñu wax Bada Mbengue moom xam naa ne nee na moom day leeral waaye maa ngi bëgg a gëm na day leeral nag mel na ni lëntalam gi sax nag mel na day bëgg mbir yi leer moo tax muy lëntal <laughs> mais macha allah sant yàlla euh, laaj yi muy laaj wax dëgg yàlla ay laaj yu am solo la te gis naa ne sax loolu mooy mbir mi maanaam mbir mi dafa war di avancer. di dox su ko defee nit ñi di mën a bàyyi xel yàlla li mu jàngaleel boppam ci mbir yi nga xam ne moo fi ne nga xam ne bu njëkk ba nit ñi daan nañ ci wax ay wax li jiitu li may njëkk a wax mooy ñun ñun duñu daganal ñun duñu aramal ñun duñu digle ñun duñu tere kiy digle kenn ki la te mooy yàlla borom bi maanaam loolu nag ci islaam laay wax maanaam islaam ab muslim moom du ci daganal du ci araamal islaam ab muslim du ci digle du ci tere ki nga xam ne moo moom islaam di yàlla mooy digle mooy tere ki nga xam ne moomoom islaam di yàlla mooy daganal mooy xaraamal kon ñun xëy na ku ñuy laaj bul laaj ndax nangam yéen dangeen koy digle waa da ngeen koy tere waaye ndax nangam yàlla da koo daganal waa ndax nangam yàlla da koo xaraamal waa ndax nangam yàlla da koo digle waa ndax nangam yàlla da koo tere non la démé mais di sant bu baakha baakha baax nak ci laaj yi da wax deug yàlla ay laaj la yu ama ama ama ama ama am solo xam nga yàlla so démé ci alquran ci suratu al an'am mi surat 6 verset 119 ci bir aya ba dana koy faral di tuddu yàlla dafa wax da waxad fassala lakum ma harrama alaykum yàlla dana faram na leen li mu xaraamal ci yéen maanaam yàlla lépp lu mu xaraamal ci ñun da ko faram moo tax dañuy wax ne lépp lu waay wax ne dafa xaram day war mu wane fan la yàlla faram loola lépp wax ne dafa xaraam day war mu wax day war mu wax fan la yàlla faram fàcce loolu loolu nag bokkul ak waa ahlu sunna wal jamaa nga xam ne ñoom dañoo am ay nit yu daganal di xaraamal di tëral ay ate di saxal ay jëf ak di dàq ay mbir loolu moom amul ci islaam ci ahlu sunna wal jamaa la am ak xëy na ci yeneen kuréel yi mais islaam moom loolu amul ci euh, kii nag li muy laaj mooy li ñuy wax euh, lu ñuy wax chanvre indien wala ñu koy wax marijuana wala ganja comme moom noonu mu ko waxee <laughs> madame Mbengue bu <laughs> nekk lu am solo nag loo xam ne ñun ñi yàlla dogal na daan nañ ci waxtaan ak ay nit te comme li aju ci maanaam mbiru drogue yi yàlla dogal na man moom daan naa ci gistu yàgg na ci xeetu drogue yi yi nga xam ne euh, maanaam maanaam nit ñi dinañ koy jëfandikoo moo xam yi nga xam ne maanaam bëri na quoi yi nga xam ne ci ay maanaam loo xam lu chimique la wala yi nga xam ne day jugee ci ay plante naturel wala sax mën na bañ a jugee sax ci plante ndax ndax ndax li ñuy wax drogue xeet yooyu bëri na daal su fekkee garab gi muy garab li ñuy wax chanvre indien comme li ñuy wax marijuana waaye li ñuy wax chanvre indien garab gi ci boppam xam nga sax soo xoolee maanaam loolu gars yi dañuy wax na ñoo ngi ko njëkk a maanaam ci liñ découvrir ci histoire garab googu ñoo ngi ko découvrir ñoom fële ca Inde moo tax sax ñu koy tuddee chanvre indien loolu moom moo waral loolu waaye jëmmi garab gi nag xam garab gu bëri ay variété la garab gu bëri ay njëriñ la maanaam nekkul ne rek tux ko rek lay jëriñ nit ñi liñ ciy defar bari na am na ay variété yoo xam ne soo demee ci yenn dëkk tubaab bi dañ ciy bay lu bari di ci defar ay tissu dañ ciy defar sax ay tissu yu bari na lañ ciy defar am na ñoo xam ne gis ngeen dañ ciy defar ay huile euh, am na ñoo xam ne dañ ciy defar lu mel nii comme bi di ngeen gis des fois ci yenn diwu bopp yi wala nangam am na ñoo xam ne comme ni ñuy naanee am ngeer fii Sénégal di def ay infusion noonu lañ koy jëfandikoo. nga xam ne dañ ko daan fajoo ci la jiitu xam na doo xam ne garab goo xam ne day faj ñu xam ko te it ne garab sàngam dafa xaraam loolu moom yàlla dogal na maanaam loolu amul ci lislaam ñu ne garab gii comme garabu yàmbaa dafa xaraam wala garabu nàngam dafa xaram loolu moom soo demee sax ci gaa yi ñoom xaraamaluñ jëmmi garab gi ñoom li ñuy xaraamal mooy di ko jëfandikoo comme maanaam di ko tux xëy na di ko tux te sax di ko te yooyu sax li nga wax ni sax am na solo parce que di ko jëfandikoo maanaam ni ñuy jëfandikoo yàmba bëri na ay façon ni ñuy jëfandikoo yàmba comme noonu ma ko waxee am na ñoo xam ne maanaam dañuy tawat ci cosaan li sax di ko def ay infusion di ko naan kon ñi nga xam ne dañuy am yenn douleur yi wala nangam loolu bokk na ci loo xam ne maanaam da ko daan jëriñ ci bu njëkk ba parce que sax lu waral interdiction bi sax su ngeen gëstoo histoire tuuti di ngeen xam waaw parce que gis nañ ne am na ay vertu thérapeutique am na ay loo xam ne dina koy faj mu am yoo xam ne su fekkee ne nit ñi xam nañ ko di ko jëfandikoo bëri na ay antidouleur yoo xam ne dootul jar wala boog euh, euh, bëri na antidouleur yoo xam ne du jar waaw soo xoolee interdiction bi loolu bokk na ci li tax ñu tere ko waaw ndax soo xoolee bu njëkk ba su ngeen gëstoo manam li nga xamne mom lañ téré won ci dëkk yi liñ interdire woon mooy wax alcool soo demee États-Unis so gaay yi na ay film yuñ ci jouer ci li wax jamono prohibition jamono prohibition bi bëri na loo xam daan nañ ko tere euh, comme kii ñu tudd waaye lu melni alcool daan nañ ko téré ta alcool xam nañ ne par exemple ginnaw gi la ko gaay légaliser ta alcool xam nañ ne lor. loolu yàmba du ko lor soo ñëwee ñun fii su suñ dëkk yi da ngay gis na alcool dafa légal mooy li ñuy wax sàngara da ngay gis na fii maanaam dafa légal te pourtant alcool li muy lor yàmba du ko lor da ngay gis ne dañoo criminaliser yàmba ba pare légaliser maanaam alcool te pourtant su fekkoon ne dañuy xool ci lor yi alcool kenn du ko tëkkale ak yàmbaa ci boppam man ay jamono man mii sax daan naa ci wax ma saa cee wax ak ay nit bi ma ko waxee dañ ma doon xoolaat sax ndax dañuy waxtaan ñu ñuy wax ci affaire u yàmbaa ni mu bëree ay jeunes yoo xam ne dañ leen di tëj ndax yàmbaa ma ne leen man su fekkoon amoon naa dogal dama koy légaliser li may wax ni yàgg na de loolu c'était en 2016 ñu ne ma ah lu tax nga ne su doon yow da koy légaliser. ma ne leen déjà jeunes yi nga xam ne ñoo ngi leen di jàpp maanaam ci yàmba ni mu bare ñii di wax naan ay benn takk lañu fekkee wala benn nangam wala benn nangam ñu leen di jàpp di leen tëj ay quinze jours wala un mois wala nangam maanaam muy dolli population ci prison yi ci yàmba alcool bi nga xam ne moo gën a garaaw ñu légaliser ko nit ñi am accès ci alcool soo xasee majeur ci num la soobee te fii sax xam nañ ne bëriwaa na jeunes yoo xam ne majeur uñ dañ koy jëfandikoo ndax comme li ñuy wax contrôle bi demeewul noonu te ma ne leen faw ñu bàyyi xel tamit benn affaire ndax alcool moom ku xam-xam na ne moom day yàq ay cellule ci nit moom baaxul moom completement moo gën a bon maam li ñuy wax yàmba completement te ma ne leen tamit mbiru interdiction maanaam nit ci boppam dafa bëgg loolu ci nit dafa am maam dafa am nature boobu nature rebelle boobu fi ma ne leen fi mu toll nii yàmba interdiction bi ci tegu day tax ba jeunes yi dañuy gis ne lii dafa fën maanaam maa mbiru guerrier la wala mbiru nàngam may leen suñ ko légaliser woon dootuñ ci am soxla te loolu presque yëpp xeetu interdiction yëpp sax moo mel noonu maanaam soo nit soo teree rek lu ci ëpp nit ki ñenn ñi seeni xel ñoom dañuy bëgg dem di essayer loolu ndax dañ koy jàppee ne lii braver ab interdit la mu mel ni day leen jox airu guerrier wala nàngam mais ma leen yàmba pour man maanaam nekkul loo xam ne sax maam état waroon na nekk loo xam ne da koy interdire parce que interdiction bi day tax ba nit ñi dañ ciy gën a jëm te su ko légaliser woon bëri waa na ñu koy jëfandikoo dootuñ ci am soxla su ko légaliser woon bëri na ñoo xam ne maanaam ñu ngi ci jëm te dootuñ ci am soxla te it nii maanaam ni ñuy tëjee ay nit lu baree baree bari ay jeunes ci ay délits yoo xam ne soo xoolee dañ naan ci yàmbaale lañ jàpp ci ay quantité yoo xam ne daanaka wala dañ leen a fekk ñuy tuux wala nàngam da ngay gis ne su boobaa yooyu yëpp dana mën a wàññeeku loolu nag mbir la moo xam ne man sama gis-gis la man maanaam ci domaine boobu fekkee ne ci cadre fekkee ci cadre légal ci cadre légal waaw loo xam ne man dama doon wax ne maanaam dëgg-dëgg lii état waroon na cee bàyyi xel jéem a régler problème bii parce que di ay jeunes yu bëri di leen jàpp ci loolu daanaka soo xoolee maanaam déli yi gën a mag wala boog li gën a garaaw sax di alcool ñoo ngi ko légaliser euh, maanaam fii li fi nekk ci réew mi maanaam di mbir yoo xam ne lu ñu waroon a lijjanti la kenn xamul lu mu toll mais da ngay gis ne ci mbir yooyu daanaka ay jeunes yu bari ci loolu lañ leen di téye te loolu man damay gis ne solo si bariwul daal waxuma nag ay trafic wala nangam wala nangam. mais comme yenn comme li ñuy wax ay yenn consommateurs yi ay jeunes consommateurs yi wala yenn consommateurs yi damay gis ne loolu moom daanaka solo si bëriwul lool daal réellement parce que soo xoolee même li li kii badambee ngi yow li ngay wax léegi Europe noonu ñu ñooñu su comme lu mel ni euh, euh, nu mu tudd comme lu mel ni Pays-Bas noonu ñu créer lu mel ni ay coffee shop nga xam ne nit ki dangay am possibilité dem foofu jënd Mam pour sa consommation personnelle wala nga dem sur place consommer ñibbi wala nga gis léegi mam Europe wala États-Unis wala dëkk yu bëri ñu def euh, comme li ñuy wax mam cannabis thérapeutique nga xamné ne ñu bari dañuy dem docteur bindal leen ab ordonnance ñuy dem di jëndi manam euh, nu ñu tudd cannabis bobu léegi léegi diko ñu koy waxé manam diko euh, ki diko consommer ne dañ koy fajo yaa ngi gis léegi maanaam ni nga xam noonu la mel ci dëkk yooyu donte nag xam nañ ne tamit yu ci bari sax lu tax ñu koy légaliser maam business bu yaatu moo nekk ci ginnaaw parce que xaalis bu bare bare bare bare mu ngi ci moo ci nekk te suñ ko interdire maanaam li ñuy tuddee maanaam euh, comme li ñuy tuddee maanaam euh, comme ni ñu koy waxee euh, kii ni ñu koy waxee mooy dealer yi wala. ci trafiquants yi presque xaalis boobu yëpp ñoom ci ñoom la jëm alors que suñ ko légaliser dina am loo xam ne day jëm ci keesu état dëkk yu bari soo xoolee maanaam maam dafa am lu muy dolli ci keesu ci keesu état yi moo tax gars yi di wax naan dañ koy légaliser nangam nangam ngay gis léegi yenn sociétés yi nga nga gis ay sociétés yu bari maanaam dem di tàbbi ci loolu nga xam ne dem na ba yegg foo xam ne sax ci yenn dëkk yi. maanaam ku amul yenn moyens yi yow mënoo dugg ci sax culture maanaam marijuana boobu wala mënoo dugg ci culture maanaam li ñuy wax chanvre indien boobu waaw mooy bi nga xam ne à titre récréatif lañ koy def mooy bi nga xam ne dañ koy bi nga xam ne dañ koy jëfandikoo pour tux nii pour ñi ne dañ koy fajoo wala nangam yooyu yëpp da ngay gis ne ay mbir la yoo xam ne lu mat a bàyyi xel la te sujet yi gis naa ne sax diine maanaam taxawaay bii la gën a am. maam moom la waroon a gën a am man souvent damay faral di wax loolu xam nga nit ñi dañuy nekk ci ay pratique culturelle nangam diine dafa ñëw di réguler société dafa ñëw di réguler société moo tax doo dem mukk ci alxuraan fekk yàlla maanaam di attardé wu ci yenn point yi day ñëw wax li muy wax jàll am na yenn point yoo xam ne yàlla da ciy wax li muy wax jàll point bii ngay laaj sax mooy comme yi nga xam ne dañ koy jëfandikoo comme lu mel ni yàmba même soo demee ci alxuraan it noonu la ca demee yàlla da caa wax lam cee wax jàll su ma ne soo demee ci alxuraan yàlla da caa wax lam cee wax jàll parce que yàlla soo demee ci alxuraan ngeen njëkk a dem ci suratu Baqara ay deux cent dix-neuf maanaam fi muy wax naa ni yasalunaka yaakaar naa jamono bii rek bi ngeen di laaj ci wàllu sàngara ki am na ñaar ñu doon wax ci wàllu sàngara ba yàlla dogal na sax defoon nañ ci ab audio ñu ngi ci wax loolu yàlla bi muy bi muy wax ci yii nii dafa utilise benn baat bi ñuy wax alxamr xamr mooy loolu yow sax dégg naa nga di ko wax loo xam ne day muur am xel li tubaab di wax psychotique léegi nag suñ ne psychotique mbir mu mën a doon ci loo xam ne dañuy wax ne maam dafa yor taxawaay boobu ñi nga xam ne ñoo mën a définir na lii psychotique la wala du psychotique mooy ñi nga xam ne ñoom ñooy liggéey ci wàllu cerveau mooy li ñuy wax docteur yi ñoom ñooy wax ne lii psychotique la wala du psychotique maanaam lii xamr la wala du xamr maanaam lii muur am xel la wala nekkul lii muur am xel waaw ak yi nga xam ne effet yi nga xam ne nit mën na koo gis nii nga xam ne nit mën na jëfandikoo benn substance nit gis ko xam ne lii kat lii muur am xel la comme lu mel ni sàngara wala nangam wala nàngam wala nangam parce que même gars yi xam nañ ne risques yi nekk ci sàngara moo xam ci nit ki su ko jëfandikoo maanaam effet yi nga xam ne moom lay def ci moom soo demee ci lu ñuy wax yàmba effet yooyu amu ca soo demee ci yàmba effet yooyu amu ca da ngay gis ne jëfandikoo bi nit di jëfandikoo sàngara moo gën a garaaw fuuf ca effet yi nga xam ne moo nekk ci nit ki suy jëfandikoo yàmba boobu soo demee ci yenn dëkk yi lu mel ne dëkk tubaab bi accident yi nga xam ne li koy jur maanaam sàngara la comme li ñuy wax euh, comme li ñuy wax ma conduite en état d'ivresse li muy rey ci ay nit kenn xamul nu mu nit tamit su jëlee sàngara ni nga xamee ne maanaam li nga xam ne mën na koo jëf ci bu mu màndee maanaam ma lim mën a jëf ci bu mu màndee ci sàngara bokkut ak su fekkee dafa jëfandikoo maanaam euh, su fekkee dafa jëfandikoo ki yàmba ñaar yooyu xam nañ ne seeni effet wuute na waaye nag docteurs yi ñoom ñoo mën a wax ne lii ab psychotique la docteurs yi nag am na ñu ko wax dañuy wax ne mës naa cee waxtaan ak benn nit lu yàgg sax moom psychotique la moom moom consommateur la xama consommateur la woon ñu waaye ci psychotique la ak du psychotique daanaka wax dañ ci ay lu yàgg sax waaye psychotique la mooy du psychotique man dama koy jëfandikoo te xam naa ne nangam ak nangam ma ne ko déedéet ma ne ko man damay gëstu loolu waaye li nga xam ne médecin yi wax nañ ko ci mooy am na effet boo xam ne am na ko donte nag comme li nga comme li ma dégg Badame nga di ko wax maanaam nit kii su fekkee da cee jël lu bari wala nàngam wala nangam mais soo demee ci alxuraan yàlla dafa wax ne dañ yonent bi lañ laaj te lii sax mu nekk lu am solo li ma doon wax ci njëlbeen gi ne islaam soo ci ñëwee maanaam nit du ci digle nit du ci tere nit du ci daganal nit du ci araamal ba ci yonent bi yonent bi amul woon loolu te soo ñëwee ci ahlu sunna wal jamaa da ngay gis seen nit ñi dañuy daganal dañuy xaraamal dañuy digle dañuy tere te soo ñëwee ci alquran ci islaam moom yonent bi sax amul woon droit boobu comme dangay ñëw ci ahlu sunna wal jamaa gis ñi ñuy tuddee ñoom seeni boromi xam-xam ñuy def ay fatwa di tëral ay àtte ci ay mbir loolu nag amul ci islaam te aaya bi firnde la ci sax moom parce que comme te bëri na aaya yoo xam ne noonu la tëddee ci biir alquran yàlla di wax ne comme yasalunaka anil xamr wal maysir xam nga dañoo ñëw laaj ci yonent bi maanaam ñu ngi lay laaj ci xamr la yàlla wax yonent bi ñu ngi lay laaj ci xamr mooy loo xam ne day muur am xel ak maysir comme loo xam ne comme xeetu carte loo lépp loo xam ne xeetu carte la loolu ay li tubaab di wax terme générique la baat la boo xam ne lépp loo xam ne day muurum xel da cay dugg moo moo xam bi ñu xam moo xam yi ñu xam moo xam yi ñu xamagul lépp loo xam ne day muurum xel day dugg ci baatu xamr suñ waxee lépp luy muurum xel yemul rek ci yàmba maanaam yemul rek ci sàngara yemul rek ci maanaam euh, comme ki ci xeetu drogue yi ay cocaïne héroïne wala xeet yooyu ak it comme li ñuy wax ci jamono bi léegi li ñuy wax a comme li ñuy wax ay volets ñu ngi koy ci kii nu mu tuddati waaye comme ecstasy nga xam ne moom la gars yi di wax fii volet Sénégal nga xam ne drogue bu yàgg la xëy na day xëy na xëy na ñu ci yàgg na fi sax mais xëy na comme développement bi yegg ci jeunes yi ma ma ci tasaaroo maam yemul ci loolu ba ci sax am na yenn produit pharmaceutique maam yenn garab yoo xam ne dafa am taxawaay boobu day muur am xel. am na garab yoo xam ne day muur am xel waaw da ci yenn produits pharmaceutiques yoo xam ne dañuy def loolu ndax soo xoolee sax léegi man ci àdduna bi bëri na ay produits pharmaceutiques yoo xam ne nit ñi dañ koy détourner maanaam di ko drogué woo loolu sax am na waaw loolu sax am na am na ci yenn dëkk yoo xam ne ay at ci ginnaaw ba léegi nii sax mais am at ci ginnaaw am jeunes yu bari ci ci côté Afrique bi am na ay garab yoo xam ne ay produits pharmaceutiques yoo xam ne dañ ko daan jël ba mu demoon ba nekk fa genre genre fléau ñoom ñu koy wax ci seen journaux yeeg xeet yooyu ndax ndax ma ndax jeunes yu bëri dañ doon jëfandikoo loolu yonent bi nag yàlla da ko wax ne ko ñu ngi leen laaj xamr nga xam ne suñu waxee xamr lépp loo xam ne day muurum xel maanaam yi ñu xam ak yi ñu xamagul yi ñu créé ak yi ñu créé gul lépp day tàbbi ca biir ak li ñuy wax maysir mooy xeetu kart yi yu ñu xam ak yu ñu xamagul yi ñu créé ak yi ñu créé gul yooyu yëpp ñaari baat yooyu ay terme génériques la baat yoo xam ne day labal lépp loo xam ne taxawaay boobu la am yàlla wax yonent bi ne ko mu wuuteeg lool soo demee ci ahlu sunna wal jamaa seen nit ñoom di tërali àtteeg nangam nangam yàlla wax yonent bi ne ko waxal nga xam ne yonent bi soo demee ci alxuraan yàlla danaan ko ñu ngi laaj ci nangam waxal nangam nga xamne mom du mom moy wax ay waxu bopom wala ay gis-gisu bopom wala xelatu bopom dañ ñu ngi lay laacc ci nangam waxal nangam yàlla na ko ñu ngi lay laacc ci xamr ak maysir maanaam li murum xel ak lo xam lépp lo xam ne xeetu carte la yàlla na ko waxal ne xul fiihima ithmun kabirun manam nek na ci ñom ñaar ñooñu moy nek na ci li murum xel ak xetu carte yoyu lor gu bari te ci lor gu rëy lor gu rëy mu teg ci lan wa manaafiu linnaasi nekk na ci ñoom ñaar lor gu rëy ak njëriñ ngir nit ñi nga xam ne yàlla waxul ne maanaam comme psychotrope ma xaw ma psychotique laa wax sax xaw ma yàlla waxul ne psychotrope yi amuñ njëriñ dana lor yi ñoo ëpp waaye am na njëriñ ngir nit ñi comme ni nga xamee ne par exemple maanaam chanvre indien mi marijuana boobu wala ganja boobu maanaam am na ay njëriñ yu mu am ci nit ñi su dee li ñu wax alcool aussi bi nga xam ne dañ koy naan wala nangam loolu leneen la waaye alcool ci boppam amal na njëriñ nit ñi su ngeen gëstoo sax même cocaïne muy jugee moom it ci benn garab lay jugee xëy na moom ak yàmbaa bi ni koy defee wuute na. parce que moom dañ koy jël transformer ko sur dee cocaïne muy feuille de coca comme li wax ma garab bi ñuy wax coca moom lañu jël transformer ko pour defar li nga xam ne moom la wax cocaïne mais soo xoolee par exemple maanaam coca boobu ca boppam nga xam ne mu ngi nga xam ne ci garab googu ñu wax coca su ngeen gisee boisson bii nga xam ne moom moo siiw ci bi ñu koy wax coca cola ki ko créé woon a pharmacien la boo xam ne dafa defaroon garab goo xam ne mu ngi jugee ci ma dafa boole woon koka ay feuilles koka mooy loolu ñuy defaree cocaïne ak kola bi nga xam ne mooy guro defaroon ci ab garab loolu nag moo jur ginnaaw gi li nga xam ne moom la ñuy wax coca cola bi ñuy jëfandikoo nga xam ne moom la nit ñuy jëfandikoo waaye nag comme dañuy wax ne euh, comme composition bu njëkk ba composition bu njëkk ba mooy moom la mu defaroon daan ko fajoo te daan ca fajee ginnaaw gi nag biñ demee ba yaatal ko comme nii maanaam yooyu nga xam ne dañ ko caa defoon lu mel ne coca yooyu dañ ko caa dindi. soo ñëwee tamit ci garab ci li ñu wax produit pharmaceutique yi aussi bëri na ci yoo xam ne dafa am effet boobu maanaam am na lor li ñuy wax effet secondaire. mais am na tamit njëriñ ngir nit ñi xam na yàlla dàqul ne maanaam am nañu njëriñ waaye dafa wax na nag lu ci teg wa ismuhuma akbaru min nafihima waaye seeni lor moo gën a rëy seeni njëriñ ñoom ñaar mii loolu di psycho psychotrope yooyu loolu di muurum xel ak euh, maam yooyu nga xam ne ay carte lañ yàlla mu ne seeni lor moo gën a rëy seeni njëriñ kon am na njëriñ léegi nag ñu ñëw ci ndax dafa xaram wala xaraamul ndax dafa xaraam wala xaraamul yaakaar naa keroog bi ñuy wax ci sàngara maa ngi ciy wax loolu sàngara kenn du dem ci alquran wala lu ñuy wax baatu xamr kenn du dem ci alquran mooy mooy psychotropie bu mu ci mën a doon kenn du dem ci alquran wax ne dafa xaraam mënul nekk ndax yàlla waxul ci yooyu xaram ndax bi ma njëkk a wax yasalunaka anil xamr wal maysir moo ngi nekk ci suratu baqara aaya 219 kenn ku ci ne mën na dem vérifier ko ndax dafa haram wala xara wala haramul nit su ko bëggee xam meuna dem ci suratu ni ñu koy waxé way suratu maida mu dem xoli muy surat 5 dem xol ay 90 ak 91 yàlla ñëwaat na fofu su ngeen démé nak ci traduction yi baatu xam lu ñom dañ koy firé 20 le 20 mais loolu firiwul 20 li muurum xel la li ñu wax psychotrope manam terme générique la nekul ben mbir rek dedet terme générique la moom ak maysir yëpp ñoom ñaar ñëpp ay terme générique la mooy baat yoo xam ne lépp loo xam ne dafa mel noona day tàbb ci seen biir noonu la mel su ngeen demee ci suuratu maida muy suurat 5 ay 90 ak 91 yàlla di wax ne yaa ayuha alladina amanu innama alxamru wal maysiru wal ansabu wal azlamu rijisun min amali shaytan mu ne fajtani laallakum tuflixuun mu ñëw ne innama yuridu shaytaanu an yuqia baynakum al adawatu wal bagda fi l xamri wal maysir wa yasuddakum an zikrillahi wa an salaati fa hal antum muntahun xam nga loo dafa am loo xam ne comme li ñuy wax comme recommandation yàlla dafa wax ne e yéen ñi gëm foofu dafa indi baatu xamr ak maysir boole kooku yeneen al ansaab ak al azlam ne rijsun nga xam ne daal du lu baax moom du lu baax te it ci jëfu seytaane la bokk mooy ñeent yooyu mu lim mu ne ci jëfu seytaane la bokk mu ne léegi nag faj tani buuhu yàlla waxul yàlla waxul dama ko araamal ci yéen de dane moytu ndiku leen ko kon mën na am di ngeen tonowu di ngeen bénéficier wu moytu ndiku leen ko xam nga moytandiku leen ko loolu recommandation la du interdiction du ab tere waaye recommandation la moytandiku leen ko yàlla waxul na tere naa leen ko waaye dana moytandiku leen ko moytandiku mooy éviter ci tubaab yàlla ñëw ne comme ci jëfu seytaan la yàlla ñëw ne innama yuridu seytaanu an yuuxia maam seytaane maam jëfam la ngir di leen xiirtal ngir ngeen di def lo xam day muur seeni xel nga xam du ngeen lucide à 100% comme yo yàlla lim non len lu ci ne amna ci lo xam ne maanaam am lu meuna jural nit ki yàlla mo nañ ko moy tindiku yàlla nak mu ne ma yuridu shaytanu an yuqia bainakum al adawatu wal bagda fi l xamri wal maisir wa yasuddakum an dhikrillahi wa an as-salati fa hal antum muntahun yàlla mu ne mu indi nag ñaari muy alxamr wal mooy li nga xam ne mooy psychotrope yi ak carte yi ak li ñu xeetu carte yi mu ne seytaane nammul lu dul tàbbal seen diggante ak noonoo ak mbañeel di ko jaaree ci psychotrope yooyu ak xeetu carte yooyu mu teg ci wayasuddakum ak di leen gàllankoor mooy di dox seen diggante an dikrillahi wa an salaati ak di dox seen digganteeg fàttaliku yàlla ak julli yàlla ñëwaat indi ab laaj ba tey du xaraam ab laaj la indi fa hal antum muntahuun ndax kon du ngeen ko terewu kon lu wax ci kaw mooy mooy tundiku leen ko ci suuf mu ne ndax kon du ngeen ko terewu mooy tundiku leen ko ak ndax kon du ngeen ko terewu kon waxul ne dafa xaraam dana nañ ko moytandiku ak nañ ko terewu léegi nag man damay faral di wax ne yàlla mi nga xam ne moo ñu bind te moom ñu yow mi gëm comme ni mu ko waxee ci aaya 90 ci suurat 5 ya ayyuhal lazina amanu yàlla su indee mbir ne moytandiku leen ko yow mi nga xam ne gëm nga li war ci yow mooy nga moytandiku ko yàlla ñëwaat ci suuf moom mi la bind xam la wax na kat seytaane dafa nam ci yéen nangam ak di ko jaaree ci lii yàlla moomu na la ndax kon yàlla moomu na leen ndax kon du ngeen ko terewu yow soo nekkee boroom xel war nga koo moytandiku war nga koo terewu ndax am na risque yu ci nekk yi nga xam ne nag ci misaal maanaam danga koy jëfandikoo ci benn jubluwaay rek. muy faju ndax yàlla waxul ne amul njëriñ waaye dana lor ya moo ëpp njëriñ li kon nit ki su dee borom xel même su koy fajoo it mu bañ ci abuser mu bañ ci ëppal mais su fekkee da koy fajoo mu bañ a nekk loo xam ne da cay ëppal waaw ndax yàlla dana moytundiku leen ko xam yàlla du la moytundiku loo loo xam ne yow da nga koy fajoo par exemple loo wax ne moytundikul nàngam ndax danga koy fajoo su fekkee ci faju rek nga yem du la ko tere ndax nit su feebaree day faju yàlla tamit du la tere loo xam ne maanaam loo xam ne yow da koy fajoo waaye su waxee ne am na njëriñ ngir nit ñi waaye lor ñoo ëpp kon nit ki su bëggee minimiser lor ya na minimise nam koy jëfandikoo xam ne même su fekkee produit pharmaceutique la su fekkoon na garab la boo xam ne da ngay dem pharmacie jënd ko mu nekk loo xam ne nee nañ la dafa am effet secondaire yii tey psychotrope la yow yaay minimiser na nga koy jëfandikoo soo bëggee minimiser effet secondaire yi nga xam ne loolu dëgg-dëgg noonu la demee waaye yàlla moom lépp loo xam ne xeetu xamr la waxul ne dafa xaraam waaw ñii ñëw di wax ne dafa xaraam loolu ñoom seen waxu bopp la te comme li yàlla di wax ci alquran parce que comme li may wax rek nit ñu bari li ñu xamul mooy liñ doon liñ ñu daan jàngal ak liñ daan wax loolu du islaam loolu njàngaleem ahlu sunna wal jamaa la ñoom ñoo am ay nit ñu am pouvoiru daganal ak xaraamal loolu ñoom ci seen diine la muy ahlu sunna wal jamaa mais islaam loolu amu ca léegi nag comme li may wax li may wax à chaque fois maanaam li ci li ci yërëm dëlu mooy li ci triste mooy nit ñu bari dañoo topp ci loolu jàppee ko islaam ca boppam alors que du islaam maanaam loolu ab idéologie la waaye islaam moom yàlla moo ci araamal yàlla moo ci daganal te mbir yi amul fenn nag fenn am na ci gaa yoo xam ne nag ci yenn sunnit yi mën nañu naan ay lii mais man ci islaam laay wax. waxuma ci ahlu sunna wal jamaa yéen comme ñi nga xam ne dañuy wax ci yenn wax yi ñoom loolu seen gëm-gëmu ahlu sunna wal jamaa la ñoom nañ gëm seen diine la mu wax man waxuma ci loolu man ci islaam laay wax islaam gi nga xam ne nag ci lay wax ay aaya ñoo ci saxal ay aaya ñoo ci dàq man aaya yi yàlla wax laa wax ku am loo ci wax rek indil aaya te sax ñoom duñ indi parce que loolu ñoom nekkuñ ci islam man ci islam laa wax islam nag lii moom mooy lii la yàlla jàngale te islam nit du ci aramal nit du ci daganal so deme sax ci sourate ci sourate 16 mi sourate an-nahl aya 116 yàlla day wax ne wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadiba هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون يالا دا فاخ ني بولن واخ لي سين لام ني دي ملال لي دغان لي حرام نا كون su ñëwee di wax naan lii dagan na lii xaraam na te nekkul lu yàlla daganal nekkul lu yàlla xaraamal loolu kàcc la maanaam sosal yàlla kàcc loolu sosal yàlla kàcc la parce que loolu aaya bi day wane ne mbiru daganal ak mbiru xaraamal loolu domaine yàlla kenn fekk ko ci ku mën a doon ku ne soo ñëwee naan nangam dafa dagan wala nangam dafa xaram yaa ngi sosal yàlla ab kàcc yaa ngi sosal yàlla ab kàcc yàlla di waxe nag bu leen bu leen wax lu seen làmmiñ ñi di melal ci kàcc di wax naan lii daggan na lii xaram na ngir sosal yàlla kàcc yàlla teg ci ne gaay yi nga xam ne dañuy sosal yàlla kàcc du ñu tonowu mooy duñu ñu wu wala boog duñu ñu réussir wala boog réussir ba pare yàlla ñëw sax dëgg-dëgg di wax ne ñan ñoo koy sosal kàcc yàlla wax ne innama yaftari l kadiba alladina laa yuminuuna bi ayatillah wa ulaika humul kadibun yàlla sax dafa xam ne ne dëgg-dëgg ñi nga xam ne ñooy sosal yàlla kàcc mooy ñi nga xam ne gëmuñ aayay yàlla yi te ñooñu ñooy kàcckat yi kon ku gëmul aayay yàlla rek mooy mën a ñëw naan lii dafa dagan lii dafa xaraam ndax yàlla su waxee ne faram fàcceel na leen li mu xaraamal ci yéen nit ñëw bëgg a xaraamal lu yàlla xaraamalut yoo xam ne yàlla waxut ne lii dafa xaraam kooku gëmut ay aayay yàlla ndax yàlla dana faram fàcceel na leen li mu xaraamal ci yéen faram na leen li mu xaraamal ci yéen kon lépp lu yàlla faram fàccewul ne dafa xaraam nit amul droit ñëw ne nangam dafa xaraam comme niñ koy defee ci njàngaleem ahlu sunna wal jamaa képp ku def loolu rek sosal nga yàlla kàcc te dëgg-dëgg nag ñooñu ñooy kàcckat yi loolu mooy li nga xam ne moom la yàlla jàngale te yàlla lan la wax ci koo xam ne gëmul ay aayaam inna alladina laa bi ayatillah laa yahdihim allahu wa lahum azabun alim gaa yi nga xam ne gëmuñ aaya yàlla yi yàlla du leen gindi te ñoom am nañu mbugal mu metti ci la doog a wax ne nag innama yaftari l kaziba alladina la yuminuna bi ayatillah wa ulaika humul kazibun ci dëgg-dëgg tax maa si dëgg-dëgg sax ñi nga xam ne ñooy soxal yàlla kàcc mooy ñi nga xam ne gëmuñu aaya yàlla yi te ñoon ñooy kàccikat yi te ay aaya yàlla ku dem ci alxuraan bari na ca lay tax nit ki doon ab yéefar mooy weddi aaya yàlla waaw damay wax ne am na ay atte ak i gëm-gëm yoo xam ne ngir nit ki am na àtte yoo xam ne nit ki souvent sax ay àtte am na àtte yoo xam ne wala mbir yoo xam ne ku ko gëm rek da ngaa weddi yàlla ndax weddi yàlla moo mën a tax ngay gëm loola weddi yàlla moo mën a tax nga gëm loola ndax yàlla su waxee ne faramfàcceel fàcceel na leen li mu xaraamal ci yéen nga gis loo xam ne yàlla amul fenn fu mu tudd ne dafa xaraam ay nit ñëw wax ne dafa xaraam ngeen gëm la nit ñoo wax te nit ñooñu sosal yàlla kàcc yéen ngeen gëm kàcc yooyu ñàkk gëm ay yàlla moo ko jur kon wax dëgg yàlla macha allah noonu la demee te laaj bi nekk laaj bu am solo xeetu laaj yi nekk laaj yu am solo yoo xam ne maanaam li li ci nit ki mën a jàngatee bari na li ci nit ki mën a ubbeekoo ci wàllum xel bari na li ci mën a leeree ci nit ki bari na ndax dina tax ba nit ñi am na ci yenn parce que alxuraan damay wax ne li ci am solo loolu la maanaam alxuraan benn point day ñëw mu wax ci li muy wax mu leer nit ñi xam ko dem seen yoon. nga xam ne léegi nit ki su xamee ne suñ borom lii la ci wax demal suratu Baqara aaya 219 nga dem suratu Maida muy suratu Baqara mooy surat 2 aaya 219 nga dem suratu Maida muy surat 5 aaya 90 91. nga dem xam li yàlla wax ci lii pare nga ci foofu la ca yàlla yem nga xam ne léegi yow soxlaatul maanaam ci kanam ay ñu naan waaraatekat yi lii lañ ci wax ak borom xam-xam yi lañ ci wax ak diw lii la ca wax ak diw laa la ca wax déedéet lii la ci yàlla wax demal nga xool li ca yàlla wax mu leer la nga jàll ci leneen su ko defee yow yow point bi moom réglé wu na ci yow c'est que alxuraan loolu mooy li ci neex maanaam moom benn mbir day ñëw nga gis li ci yàlla wax loolu yow pare na ci yow jàll nga yaa ngi ca leneen. point bii lii la ci yàlla wax leer na ci yow dem nga point bii lii la ci yàlla wax leer na ci yow jàll nga nga xam ne yow daanaka sa diine li ci war a leer ci yow day leer ci yow nga continuer nag sa dund yow waaye doo ci nekk chaque jour windeel windeel mu mel ni ay débat diine yàlla amul débat diine yàlla lu ci am mooy lan la yàlla wax ñu ne lii la wax ñu ne ah waaw lii de moom lii la yàlla wax jeex na ñu jàll moo tax débat yi nga xam ne moom la nit ñi di def soo ko xoolee lenn rek la ñi gëm diine yàlla ak ñi gëmul diine yàlla bëgg a débattre rek ñi gëm diine yàlla maam <laughs> noonu la demee waaw maam ñi gëm diine yàlla ñi gëmul diine yàlla nekk ci beneen diine te jàppee ko maa te jàppee ko diine yàlla di debaat rek ñi nekk ci diine yàlla ndax nit su ñëwee ne lii la yàlla wax fii la ko wax yow nga ñëw naan déet ñun suñ diw nee na wala soo demee ci téere sàngam naanam loolu moom mooy ñàkk gëm yàlla rek waaw ah, kon dëgg-dëgg débat yi loolu moom moo koy jur waaye su fekkoon ne ñun ñëpp dañoo bokk gëm diine yàlla suñ ñëwee dañ naan ah yàlla lan la wax ci nàngam wala fan la wax ci nàngam ñu ne ah yàlla kat lii la wax ci nàngam ñun ñëpp ñu gis ko ne ah, waaw lii de moom macha allah wala ñu ne yàlla lan la wax ci nàngam ñu ne ah, lii de yàlla waxu ci dara ñu xam ne kon yàlla waxu ci dara yàlla lan la wax ci nàngam ñu ne nàngam la ci wax te fii la ko wax. su ko su ko defee mbir yi day yomb werante du am wuute du am xëccoo du am wujje du am dara du am dara dara du am ci xeet yi su ko defee nag nit ñi dañuy mën a concentré wu vers l'essentiel jëm ci li leen di jëmale kanam jëm ci liy jëmale kanam seenu askan jëm ci liy jëmale kanam seenu réew jëm ci liy jëmale kanam adduna bi moo tax nit ñëpp su yàlla dogaloon ñu yeewu ci alxuraan mbir yi day yomb tellement ay weranteek ay xuloo rayanteeg yooyu yëpp dootul am lan la yàlla wax fan la ko wax ñu gis ko gëm nañ li yàlla wax pare nañ ci jàll nañ point yëpp ñu defee ko noonu moo tax nii nga xam ne moom la Bada Mbengue mii di def jamono bu na mu indi ab laaj boo xam ne dafay nekkoon nekkoon ab xuloo walla ab xëccoo ñii naan lii ñii naan laa te liy waral werante boobu di am mooy ñàkk dellu ci li yàlla wax ndax suñ dellu woon ci li yàlla wax ne yàlla lii la wax léegi nag ki gëm li yàlla wax moom pare na ca yàlla lii la wax ci nàngam jeex na moom dootu ci werante dootu ci wax ku ñëw di ci wax ak moom danaan ko ah yàlla de lii la ci wax demal surat 2 aya 219 ak surat 5 aya 90 ak aya 91 nga liir li yàlla wax foofu su xaraamee ak su xaraamul da nga ko da nga ko xam li ca yàlla wax it da nga ko xam dana leer ci yow nga xam ne mbir yi macha allah noonu la demee kontaan nañ lool ñu ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di baalu ñëpp a te di leen baal aax tey ñaan yàlla mu boole ñu jéggal jërë ngeen jëf wasalaamualeykum.